asalaamaaleykum euh, wat ci watit rek gannaaw kilifa gi doon wax ak ñun léegi may ndokkeel Sénégal yëpp may ndokkeel waa kawlax yépp di bokk ak ñoom mbégte bés bi waaye nag it di jagleel ndokkeel euh, xalif général Medina Baye euh, kàddu yu teey kàddu yu rafet kàddu yu yëkkatiku nag ci maanaa yëkkatiku ci xekma euh, réew mi dafa soxla lu mel nii kàddu gu nga xamante ne ni dana fàttali kàddu goo xam ne dana gindi dana leeral aw yoon te du gaañ kenn yaakaar na kàddu yu ñu dégg loolu la rek fàttali ñu suñu bopp en tant que sénégalais rek waaye tam en tant que jullit suñuy warigar ci lëngoo ngir defar lëngoo ngir dëggal lëngoo ngir jubal yokk suñu bopp yokk suñu réew ba tax na kon yaakaar naa ne daal discours bii nu dégg de bu ñu sañoon mu dugg ci noppi Sénégal yépp ndax jëriñ na jullit jëriñ na ab tiijaan ndax kuréel boobu tamit la jëmmal waaye ci gàttalitam kàddu la yoo xam ne rek jëriñ na lool lool lool doomi aadama ndax daf nu fàttali nag ne nite rekk dafa baax wa loolu lay teunké Khalif khalif bi di Yesal di yéssal suñu tegin ci moom suñuy euh rek jëmele ci mom jëmele ci mbollem njabot gi duma faté imam cheikh ahmad tijane cissé euh luma wax rek waxit lay doon ci seede yi khalif bi def discours bu nga ni wax dëgg yàlla li aju ci bés bi yëpp wax na ko waaye tamit dëppoo rek ak ni nga xam ne suñu sang ñun ñëpp noonu la bëggee.